mbokk yi ñoo ngi nuyoo nuyoo bu tedd nuyoo bu lislaam ginnaaw loolu it santaat yàlla bu baax a baax a baax julli ci yeneen bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam dolli gërëm sunu yaakaar cheikhul xadim mbokk yi kon xam naa ne ngir ñu njëkkante waxtu wi rek ndaxte programme yi am na yu bare bare yoo xam ne nii moo ci war a des wala li ci des sax daanaka ay kalimaat la yoo xam ne ni mbokk yi dinañ ci waxtaan insha allahu rabbi eh, lii waa kër sëriñ Massamba ni ñi nga xam ne ñoom ñoo tuddee seen bopp mu asasatu fatxul manaan ci lajna al saqafiya Seex Xaadim Mbàkke Gédé nekk ca bopp ba ñoom ñoom ñoo doon góorgóorlu tuuti ngir génne benn téere boo xam ne nii dañuy bëgg chaque année ñu di ko génne téere bi nag majalla lañ koy tuddee majalla nag mënees na ko wax xeetu journal boo xam ne nii ci biir majalla ba day nekk journal boo xam ne nii la cay am moom mooy lu jëm ci diine walla lenn loo xam ne dafa jëm ci scientifique wala mu jëm ci mbirum culture loolu bëgg nañ chaque année ñi di ko def ci biir majalla bi li waral loolu nag moom mooy yàlla dimbale nañu baa fii nga xamee ne moom mooy kër sëriñ Massamba Kanni ñi ci ëpp ñenn ñi ay jàngalekat lañu ñii ay jàngkat lañu ñii ñi ngi toll ci am jàng ci biir téere bi rek bi ñuy bind danoo dem ba yegsi ci mi li nga xamee ne moom mooy sëriñ bi nga xam ne moom mooy sunu xalifa Cheikh Ahmadul Fadal ñu ñaan sunu borom tabaraka wa taala yàggal ko fi lool ndaxte wax dëgg yàlla ndam la yàlla xam ne ni bi ñu koy bind bi ñu yegsee ba ci moom laaj ko ne ko dañoo bëgg a bind ci yow lim def moom mooy dafa bindal boppam bi luxatil arabiya maanaam ci ay arab yu wér la ko bind yu rafet lool ba noppi jox ñu ko loolu nag di ab soññ ci ñun soññ bi mooy ki jiite nekk ci kaw ba noppi ëpp la lépp li wax ëpp la lépp ba noppi di la saa yoo ko gisee nga xam ne li ngay jàng ci moom rek moom mooy am murit te fi mu ne boo ko xooloon sax nga xam ne fi mu ne am na ci ñoo xam ne ci xale yi boo leen laajoon dañ naan la boo demee xamu dara waaye loolu himma mat sëkk moom moo ko jàppe wala moom moo nekk ci moom kon loolu nag ku ko am dañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax di ko gërëm ndaxte wax dëgg yàlla kat ndam la ci ñun ndaxte dafa ñuy soññ ngir ñu gën a góorgóorlu ci lañ nekk ndax day luy wéet lool ndax boo ci nekkee nit ñi dañ lay mel ne lu lay fàtte gis nga ñi nga xamee ne dañ fee nekk di jaamu yàlla tey liggéeyal xam-xam nga xam ne sëriñ bi loolu rek la waxoon ne ci lay dox inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhaymin shahida waaye fi mu ne mbooloo mi léegi yow mi nekk ci biir famille bi di góorgóorlu di njàng yow la ñuy gën a fàtte del xool gis nga ki nga xamee ne ab jàngalekat la wala muy jàngale luy xew ci mbooloo mi rek moo koy mujjee xew wala maanaam day mel ne dafa bokkutut ci biir mbooloo waaye kii feeñ ca télé nga xam ne maanaam saa yu caméra jotee rek mu ne mu taxaw kooku la ñuy defee ne kooku moom mooy góorgóorlu te fekk ne kat am na ñoo xam ne nii ay daara lañ yor dama ci jël misaal rek bokk ci biir kër gi sëñ Massamba Kandi gi Abdoul Ahad bu Sanaafir ci biir fi ne kër gi ci la bokk xoolal lim yor ci ay personnes di leen jàngal waaye fi mu ne kenn du ko gis fenn kenn du ko tudd fenn te pourtant kat am na ci ñoo xam ne nii ci maam yi ñu xaw am ñu xaw a am as tuuti comme sëñ Moustapha mi nga xam ne daa am as tuuti fi mu ne da ngay defee ne moom moo moo moo ëppale ñëpp wala maanaam fu mu feeñee rek dañ naan moo ma kon yooyu nañ ci moytandiku bu baax a baax mbokk yi xam lu am solo moo tax Cheikh Mouhamadul Mountakha yi nga xam ne moom moo fi nekkal Cheikhul Khadim fi ko ñaan suñu borom dëgëral ko lool moom gis nga nim mel gis nga nim ñu ci soññe mbokk yi nañu jox gone yi himma gone yi nañu fexe ba ñu jàng loolu rekk moo fi nekk gis nga sëriñ bi ci xam ci la doon doxe waaye fi mu ne gis nga lii lu tuuti lii fi mu ne bu ñu leen waxoon ne leen masalan 1000 francs lay jar sax am na ci ñoo xam ne nii duñ ko nangoo jënd ndax dañ naan ax ah, yii mu amul benn njëriñ ak taalibe rek am njëriñ taalibe ci xam-xam lañ koy tabax loolu la sëriñ bi waxoon yaa ayyuha shibbaanu in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala amal bu fekkee ne da ngeen ragal gàcce dëgg-dëgg te moom mooy doomu aadama yi fi mu ne ñun ñëpp ragal gàcce nee na da ngeen jiital xam-xam ci njëkk ngeen di def kon mbokk yi loolu nañ ci bàyyee xel bu baax a baax daanaka rek buñ ci tënkee ci lu gàtt rek moom mooy tem la boo xam ne nii ci biir ma majalla bi am na lu bëree bëri lu ci nekk mbokk yi fexe nañ ba waxtaan ci biir ma majalla bi dundinuk Cheikh dundinuk Cheikh Massamba Kanni ñu def ko ci loo xam ne nii dañ koo gàttal ndaxte ci biir lajna saqaafiya dañoo am ay projet yoo xam ne ni yu gudd la yu ñu teg ci suñu kanam fi mu ne ci biir laj na bi am na téere boo xam ne nii insha allahu rabbi laj na saqaafiya bu Seex Masamba Kan ni ñoom ñoo koy liggéey te dinañ ko liggéey mu génn ñu teg ko ci biir marché bi insha allahu rabbi laj na bi it wala majalla bi tamit majalla mawsami yi la chaque année bu ne dinañ génnee majalla insha allahu rabbi loolu nag li koy def mooy ñun ñun ñii nga xam ne ñun ñooy ndaw yi ñun kat xaaratuñ ci kenn ci liggéey bii liggéeyu xam-xam bii xaaruñ ci kenn ku ci ñëw fekk ñu ci ku ci demit bàyyi ci insha allahu rabbi mbokk yi bokk na ci ci li nga xamee ne bind nañ ko moom mooy nubza wajiza an xayaati ma Massamba Kanni laj na saqaafa bi daanaka ñëpp ñoom ñoo ci maase woon daan ko bind euh, sëriñ Modou Bousso Marème mi nga xame ne moom moo nekk Maghrib ak Cheikh Khadim Mbacké ñoom ñoo àndoon doon bind nubza wajiza boobu biñ ci paree am na beneen mawdu boo xam ne nii ma Cheikh Massamba ma maa Cheikhul Khadim la relation bi nga xamee ne moom la Cheikhul Khadim amoon ak ma Cheikh Massamba Kanni loolu it naa Cheikhouna Bousso Cumbuleen moom moo ko bind mbindin wu rafet moom it moom it mi ngi ci biir majalla bi biñ paree ci loolu it am na ay abyaat ay bayit yoo xam ne nii dañ koo tagg Cheikhul Khadim loolu it ma taxaw ci tuuti ndaxte ci ginnaaw rek day mel ne am na ñoo xam ne nii fekki ko waaye mu assasatul aafiya fii lañ nekkoon léegi nga xam ne liñ doon waxtaane lépp ci ay am daax lañ ko teg nga xam ne dañ doon tagg rek di way loolu it nekk lu jafe loo xam ne ni lu am solo la luñ war di bàyyee xel nga xam ne ñooñu moom daanaka damay wax ne Cheikh Moussa Ka buñ génn bu ñëwaatoon dina xam ne kat day mel ne xale yi ñoom am nañ beneen jéego ndaxte da ngay boo leen xoolee ci seen i biir way dangay gis ne baax baxru yëpp dañ koy utiliser loolu nag nekk am solo sànq ci ginnaaw rek defoon nañ ko mbokk yi ki nga xame ne moom mu bind ci ab yaatu ma Massamba Kanni mu nekk ci biir majalla bi sëriñ Modou Bousso wala sëriñ Modou Mbacké moom bind na ci sëñ sëñ Modou Mbacké bind na ci biir majalla bi moom mi ngi ci sëñ Modou Mbacké aafiya la moom bind na ci biir majalla bi am na ci biir majalla bi tamit tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu ki ko def di sëriñ Fallou Bousso Mbar moom moo ko bind ci biir majalla bi tamit danañ ci fekk benn mawdu boo xam ne nii la muy wax moom mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëriñ li mu am ak it yiite ji nga xamee ne am na ko loolu nag ka def mooy sëriñ daam ahmadou Bousso maram mii toog ak man moom moo bind loolu bokk na ci biir majalla bi tamit am na ay way yoo xam ne nii dañ koo def mu jëm ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir nga xam ne ki ko def moom mooy sëriñ Abdul Ahad bu Abdul Ahad si mu daal di koy tuddee ila fakhril ummati muhammadin al muntaxal bachiru nekk way wu neex woo xam ne nii it lam cay wax moom mooy Cheikh Mouhamadul Muntaqa lii nga xamee ne teg na ko xeer démb nga xam ne himma la joo xam ne nii wala mashru la boo xam ne nii buñ ko toppee li nga xamee ne ñun dañ koy jooytu ñun ndaw ñi ci ñu fexe ba suñu borom dimbale ñu ñu am ay kilifa yoo xam ne nii dinañ puus bu baax a baax ci xam-xam waaye tamit ñu fexe ba ñun li ñuy sàkku ci ñun ñu am ko mooy ñu góorgóorlu ci xam-xam ba noppi it boole ko nekk ab taalibe loolu it yaakaar naa ne bu ñu demee ci biir masruu boobu dinañ ko ci fekk insha allahu rabbi bokk na ci it li nga xamee ne bind nañ ko al madinatul fadila xilmul falasifa wal waaqi wal qadimi maanaam am réew réew moo xam ne nii wala wala réew moo xam ne nii réew bu gën la ci réew yi wala ñu wax dëkk ab dëkk boo xam ne nii dëkk bu gën la ci réew yi loolu mënees na koo tuddee loolu nag ki ko bind moom mooy sëriñ bu Bousso moom sëriñ Alxaaji Ñanga di doomi soxna bu Bousso ak soxna Mariam moomu di doomi soxna sëriñ Ahmadou Bousso Maram moom sëriñ Masamba Kanni kon loolu nekk lu am solo moom di di di di ay bind wu am solo woo xam ne nii moom moo ko def ak beneen bi nga xamee ne fañ ko tënk moom mooy mbindum sëriñ Fallou Bousso Cumbuleen wala sëriñ fallu bu Bousso Cumbuleen mii ay jaar-jaaram tuuti nga xam ne moom it dañ ko tënk ci lu gàttit ngir leeral ko mbokk yi kon mbokk yi am na yeneen yoo xam ne nii it wax dëgg yàlla am na ci biir ma majalla bi te lañ ca jublu rek moom mooy gën a wane xam-xam gën a wane li nga xamee ne moom la sëriñ bi doon jixat li nga xamee ne sëriñ bi moom la bëgg ci ñun ñu di ko def ñu jàng am xam ba noppi amuk loolu dong la ci bëgg du leneen gis nga bil ulumi wa bi tuqaa man noonu laa koy firee dama naan am xam-xam bu wér ba noppi ragal yàlla te ci biir ragal yàlla moom mooy am mooy nekkuk taalibe mooy amuk taalibe gu wér kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi jéggaluwaat bu baax a baax jërëjëf sëriñ bi kàddu yi am na solo lool xam naa li si am Mouhamadul Mourtada daan wax naan na ngeen fexe ba seen biir rafet seen biti rafet ndax ku fexe ba sa biir rafet sa biti rafet rek mën ngaa rafet njort ci lislaam kon yàlla ñu ko yàlla defal euh, ñi ngi sant bu baax waa jant bee FM euh, seen teewaay ak seen jàppale ci euh, kii bi ci màggal gi am na solo lool ci njiital Serigne Góora Ndiaye ndaanaan ñoom mi ngi ci baas bi ñu ngi koy sant bu baax a baax